outil de travail nag boo ko yoree da nga koy da nga koy sàmm da koy defar da koy jagal loo nga xam ni ku xëy moo lay jox dépense ba ngay bàyyi ci sa kër boo amee sa soxla boo war a def wala yaa xam ba ci takk soxna yaa xam ba ci leneen ak leneen ci foofu nga koy jëlee ñoo war ngeen leen a fonk te actuellement organisation mondiale de la santé animale maanaam ci mbootaayu xeet yi kuréel gi toppatoo lépp lu jëm ci wàllu mala du ñoo jox trop importance bien-être animal bien-être animal mooy nga bañ di métital fas bi wala wala animal bu mu mën a doona ah, waroo koo métital waroo koo sonal waruloo koy liggéeyloo tamit yenn waxtu yu bare bare ba nga xam ne dina ko sonal mbaa moom dina gaaw a retraité parce que fas bi noo ko jàppee rek ak mbaam bi noo leen jàppee ci sa wàllu liggéey rek loola la ñu lay delloo yow itam en terme de produit donc lu demee noonu nag bu dee am jaadu na ñun itam ñu dikk fekk si leen ci loolu nga xam ne mooy seen outil de travail te ñu dénk ñu ko mu bokk ci ministère de l'élevage pour ñu ñëw jàppale leen ci kon ñu ngi leen di félicité parce que ñun xam nañu ni ne que du point de vue économique li nga xam ne moom la fas ak mbaam di apporter ci réew mi def nañ ci ay études yu wane ni que loolu lu am importance la tey boo demee dakaar wala nga dem ci dëkk yu mag yëpp ak fii ci lépp loo nga xam ne transport la buy jógee ci commerce bi li ci ëpp waxuma camion yi mais charrette yi ñoom ñoo koy yóbbu luy jógee ca tool ya li ci ëpp ay charrette ñoo koy jëlee ca tool ya indi ko ci biir dëkk yi lépp loo nga xam ne du ñu koy tabaxee muy ciment muy fer muy suuf muy doj muy lu mu mën a doon charrette yi ak voiture yi ñoom ñoo koy indi lu demee noonu nag ku koy def yaa ngi contribuer ci développement économique du réew mi produit intérieur brut bi nga xam ne moom la ñuy euh, xayma di ko xayma la croissance yéen da ngeen ci apporter lu bare bare bare loolu moo tax mu am ay ONG xam nga ay structure bu ñu jógee bitim réew ñëw ci Sénégal di ci yëngatu bëgg réew mi taxul bëgg bëgg voyager ak bëgg dox rek taxul mais dafa am loo nga xam ni moom la ñu gëm du ñoo gëm ni que fas yi ak mbaam yi war nañu leen a toppatoo toppatoo bi nga xam ne moom moo war moo tax ñuy def ba ku def formation te su fekkente ne tamit euh, aajowoo ngeen formation mun nañu xool yéen a xam ci wàllu céleri la maanaam teg yi nga xam ne duñu koy teg fas yi te Pape Thiam mi doon wax léegi wane ni que am na ci façon bu teg yoo nga xam ne dafay gaañ fas wi ba dina ko jox sax ay góom euh, ni ñuy wallete fas yi mun nañu leen koo jàngal loolu lépp dafa bokk ci bien-être animal lii nag vraiment lu am importance dama de kontaan naa ci ni ngeen mobiliser woo parce que nit ki da ngay fonk sa li lay jox teraanga da koy fonk te fas wax dëgg yàlla teraanga mënu koo weesu léegi wane nañu fi benn ngëlëmu boo nga xam ni képp kuy nitu diine doon xeex taxawal diine ci àddina bi laa wax war nga ci fas su mel noonu kon fas lu jar a fonk la man am na benn nit koo nga xam ne daf ma ne moom léeg-léeg mu romb fas dafay taxaw di jooy parce que ni ñu def fas we tax kon ngeen jàpp ne fas moom ko teral yàlla dina teral mais métit boo ko defal aussi dina am lu la cay fekk ëllëg loolu moo tax vraiment ñuy insister encore pour que lu ñu leen war a teg rek ci wàllu jàppale ñu jàppale leen ko bu ko defee liggéey bi gën a rafet